te nag ñu ngi fii fi nga xam ne moom mooy kanaal bu Gueule tàpp bi euh, Sam mi ngi ne leen sama ginnaaw fii heure bi euh, da doon fees dell Venezia mi ngi nii ndege ni daaw fii da doon fees dell xar mais ren xamuñu lu ko waral te tabaski bento ñëw na ñu ngi tax benn éleveur nag buy jaay xar sëñ bi noo tudd. Mbaye Diagne. Mbaye Diagne foo jógee. Euh, région jurbel yow ñaata tet nga indi. indi naa ay juróom fukki xar de. waaw ñu gis heure bi daaw daan na fekk fii fees dell ak xar ren demewul noonu juróom fukki xar est-ce que am nga yàq ni di di nga ko jaayee. waaw bu fekkee la doon am am na de di dinañ jar ñoom ñëpp moom. Euh, euh, li marché bi moom sans départ rek ci climat bi. Mhm. ñu gis tamit euh, manifestation yi fi amoon bi passé ñu bari amuñu fitu ñëw pour indi seen xar yi ndege daaw heure bi fii pont bi da fees dell ak xar loolu tamit est-ce que du am impact ci ñi nga xam ne ñoo war a jënd xaru tabaski. Ouais, day am problème kay parce que ñu bari war nañu génn mais dañuy soralé que ni manifestation yi problème bi day bari le 7 le 100 parce que même amna na yo xamni ñëmé wuñu ñemewuñoo génn ndax manifestation yi mais par la suite da ngay xol que ni client yi day am problème ci ñom mais xari mom xamna ni doon mel mom melul non mom lan mo lan moo ko waral. ah non xamna problème bi rek problème mu sen ki bobu rek gaay ñu bari. ñu bari wuñu ñëw. parce que man bi ma ñëw nii demaa risque rek ñëw. waaw ñu naan bayil bo affaire bi kii man leen non yàlla baax na. Mm-hmm. waaw loolu la de waaw affaire bi noonu la demee de. xarit sa ay deux cent cinquante ay deux cent ay cent quatre ay cent mille. mu ngi dem nag dem na ba deux cent cinquante. Mm-hmm. jëm ci suuf ay deux cent soixante-quinze yooyu noonu. mais est-ce que yéen a ngi sóor nga xam ne tamit amuñu moyen. oui am na am na yoo xamante ni tamit dem na ba ay cent vingt cinq cent cinquante jëm kaw. Mm-hmm. xaru sans départ daal ku nekk ak bi nga tollool rek. lekk bi tamit noonu ko dundee ren bi nag métti na xam nga clients yi loolu lañ dul comprendre li ngay jënd xar yi dina cher encore lekk bi doog a ñëw da ngay lekkal pendant ay mois boo egsee lool boo calculé yow li ngay fere rek daanaka mooy loolu mais amour bi rek. deuxième fois bi dajalé sa xaliss presque boko xolé xoolee li nga ciy am bariwul bari bo xamanteni day tax ñu li mais da ngay gis client yo xamni dañuy yaakar ne aduna ak li ci biir mo ci nekk bo duñ nangoo fay sax prix bo xamni c'est bon. gars nan dal so andak tek ak yar ak tegin lu wara lu wara jaar manam fi mu wara jaar ñu jaarale ko fofu tek ko ci yoon lo gis rek yoon yoon rek moy moy moy moy yak dal su mo nek li nga xamantene mo xont bi tamit ñu ngi naan cher na. xont bi cher na xont bi nag euh, xar yi nag balaam ñoo mën a yomb xont bi moo mën a yom hmm. xar yi doog a yomb mais tant que xont bi yombut xar yi mën na yomb. mën na yomb déedéet. xont bi lu muy jar. saako yi mu ngi jar ay ñetti junne koraay bi kiita bi mali bi ñetti junne ak ñaari téeméer bele bi ñaari junne ak ñaari téeméer xam nga loolu cher na. xar yi ngi jàppoon nang-nang rek hmm. dafa xaw a cher quoi dund moo cher daal. dund xar yi cher. dund xar cher. waaw ban façon xar nga yor laadum wala. waaw am nañ bi am nañ laadum métissage am nañ lépp daal loolu la bëgg bëgg xar rek am na fi prix ñaata la commencé. 180 jëm kaw. jëm kaw ah, amul xar bu yomb comme ay 100 ak yooyu. non non. parce que tamit euh, tabaski di ngeen am loxo jotul parce que ngi ñooñu. waaw. ñu moom fii fii moom ku ñëw rek dañ la defal xewal daal. dañ la defal xewal waaw incha allah si neexee yàlla. ñëw ci dund bi foo dem dañ koy jooy. waaw dund bi moom dund bi fu mu toll dund xar yi. dund seer trop parce que parce que boo euh, sax moo gën a seer léegi euh, dund bu nit bu a lekk. Hmm? waaw waaw. kon loolu métti na trop sax. saako bi lu muy jar di paas bi ak compte euh, beeg. sa sa saako dafa am ñu koy jaayee dix mille am ñu koy jaayee dix koy jaayee onze mille. man ñu koy jaayee mais bu dee ay kooraay bi am ñu koy jaayee sax ba vingt mille te kooraay bi dama doon jël ay quatorze mille léegi moo ngi ba seize mille am ñu ko jaayee vingt mille fii daal Sénégal moo ngi nii saa yu ñu xëy saa rek. dund gi moo cher cher goo xamante ni gis saako kooraay mu ngi doon jaar daaw se euh, treize mille ren mu ngi jaar ba dix sept mille caa bi moo tax instant bi day métti ci ñun quoi mais nag dara yàlla baax na. sa xar yi ban heure nga leen jox lekk ak ñaata yoon la ñuy lekk ci dañuy lekk deux fois par jour nag. oui. ndox mi nag ban heure ndox bi moom sans départ rek. waa ci climat bi su tàngul moom li ñuy naan bariwul pour naan. moom moom fi moom amul ndox amul dara. te te ay temps fee daa amoon ndox. Hmm. su ma ndox bool bi ko naar mais instant yi ñun fii si yoon dana war a am ndox mais boobu ba léegi amuñu ndox boobu ba léegi dañuy xëy di jënd ndox te loolu dafa xaw a métti daal. comme maire mi ngi lay dégg rek lancer appel. waaw maire yow koy man man kay xanaa laaj ñaan ñaan suñu borom ma wax maire bi pour en cas pour chaque instant quoi chaque at mu tegal ñu fi ndox en plus tamit pour waa waa marché bi tamit bu ñun jugee pour jaay ñun ñun dañoo war a xam ne ñun dañuy jaay parce que ñun benn un mois mu jeex quoi te lool yàggu parce que te ñoom dañ fi am neuf mois. li ma leen di wax mooy nan yombal affaire bi lépp mun a yomb. li yom mom fale lay joge ci kaw lepp mo na yom xon bi bu si yombe rek xari yom mais xol bi bu seeree xari yi no yom. taxe bi fi tamit ak maire bi ak yoy gis ko sonaluñ len non loolu mom amul problème mom amul ben non amul problème mom maire bi mom mais nak daw nak mom den don may ndox yoy waye ren moom mayewuñu ndox. ren lu tax mayewuñu ndox. xamna sen problème rek xamna naa. monsieur le maire mi ngi lay deug rek waxal. waw mom kay ndox mom gisun ko ren so den ko don gis. di nu di nu di nu di ni di nu di sécurité bi sécurité bi normal mais ren gisuñ ci dara su loolu warna mëna nek parce que xam nga comme yagul événement bu gatt la rek to da doon lo xamanteni il faut mënta ñak ñu ñew jappalé ñu ci bu baax gëna dimbali ñu ci ndox yek matuwaay quoi